maa lay fay El Hadj Pape mhm. euh, di nuyu ñi nga bokkal plateau bi. Mhm. jërëjëf Ndour. imaam di la nuyu. ñoom Jebel Kouate nuyu euh, Pape Djibril Fall. Mhm. di nuyu waa Sénégal yëpp. Euh, di wax ne li nu ñàkk tey. ñun ñëpp ñoo ko bokk. wallaahi wallaahi. ndax. dafa daan nemmeeku ñëpp. Mhm. lu waay ne rek fu mu dajeeg yow. Mhm. dana la message. Mhm. boo koy wax sax da foog ne yow rek la ko defal. wallaahi waaye ñëpp la ko defal. def na ay ay seede. yu mag. ci sunu yoon wi nga xam ne moom la jël. mu di feeñal sunu aada. Mbaye fay mi wooti suba. wallaay xam na bu baax li mu wax. wallaay. Uh-huh. daan na def seede ci mbokk yi ndax ñun si suñu wàllu wayjur bu jigéen. Uh-huh. ñu ngi fekk baax Tiwaawan. waaw. Uh-huh. boo demee Tiwaawan nga laaj ci kër xaali. nga xam ne ne sama maam Boubacar mi ñu tuddee Boubacar Ndour. moom moo daan ñawal sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mhm. di ko ko yóbbul mhm. fu ma dajat sëñ bu tedd bi Pape Malick Si daf koy fàttali wallaahi di ñu nemmeeku mhm. la ma wax rek maamum ju tedd bi ne ko xam-xam ba sell na wallaahi loolu moo moo tënk mm-hmm. man ni ma ko gisee muy image bu ma gis xam-xam ba moo sell mm-hmm. maa ngi koy jaale xalif général de Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. di ko jaale sëñ Maodo Sy da di ko jaale Malick Sy mu sëñ Cheikh Tidiane Sy doon sunu wóllëre sunu xarit. wallaahi. Mhm. di ko jaale Sénégal yépp mhm. nit koo xam ni que dajale nit ñi boole nit ñi. wallaahi. rafetlu àndandoo nit ñi. Mhm. ku gis photo mi ku gis taxawaayam ca Touba noonu la koy defee ca Njaasaan. noonu la koy defee. ci kaw la. wallaahi la bàyyi. Mm-hmm. defee ko ci kër yëpp. ak ci jàngu bi jàngu bi it na gis nga. image yi mm-hmm. vraiment Sénégal ñu ñàkk nañu tey. wallaahi wallaahi. ñàkk nañu un grand rassembleur. Mm-hmm. daf daan ñaw rek. daf daan ñaw rek. taxawaay. taxawaay bu mat sëkk. wallaahi. ah ñàkk nañu de. wallaahi Ndour ñàkk nañu ñàkk nañu ko rëy. waaw ñàkk nañu ko rëy. dëgg dëgg yàlla ñëpp ko ñàkk ñëpp ko jooy. wallaahi wallaahi. boo gisee jamono yi ñuy dund. nga gis mbooloo mu takku nii ci Tiwaawan. te te kenn xamul lu dajale nit ñi Tiwaawan tey. kenn àndatul ak sa sago. kenn àndul ak sa sago. nga xam ne ki ñu ñàkk moo mag. wallaahi. ñu ngi ñaan. Mm-hmm. maamam ja teeru. amiin yaa balaa amiin amiin amiin. ñu koy ñaanal. Mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. teeru sallallahu ca àjjana yi gën a kawe. amiin allahumma amiin amiin amiin. dëgg dëgg yàlla. Mm-hmm. ah tey yeew bi metti na lool lool metti na metti na wallaahi wallaahi. umma yëpp. wéet nañu tey. réew mi mhm. weet nañu mhm. du ko wax mhm. histoire réew mi lii na ci partition bu am solo ñi nga xam ne ñoo ko gën a fekkee dund ko wax nañ ko dinañ ko waxat loolu laa bëggoon a yokk macha allah président kontaan nañu wax ne que bi nga gisee muy muy junj nit ñi Pape moom mu toog du ko wax waaw waaye Ndiaga Ndour mi nga xam ne moom mooy directeuru tele bi. Mhm. wax na ma tey. Mhm. lu doy waar. waaw mu ne sëriñ bi dafa taal otoom ñëw ba ci KFM. dafa ñëw ba TFM. Mhm. woo ko ne ko dara indi ma fi. lu dul di gërëm Pape Djibril moom mu toog. wallaahi. di ko wax jàpp goo xamee ni que jàpp na ko ko ci xam-xam ci taxawaay. wallaahi wallaahi ak ñaanal gu mu koy ñaanal. buñ fi nekkoon di nettali taxawaay yi mu taxaw ci ndaw ñi. ngir di leen encourager di leen dénk. ndax day gis ci ñoom lenn loo xam ne que nun xëy na gisuñu ko. noonu la ko defee ci suñu biir kër mbay jey fay xam na lu ma wax. wallaahi noonu la ko defee ci biir kër googu noonu la koy defee ci biir kër yépp kon Pape. mënu ma woon bañ a allah bëgg nañu kontaan nañu président. mënu mm-hmm. ma woon bañ woote. vraiment kontaan nañu bu baax a baax a baax. yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa taxawaay waaye sa taxawaay euh, ci ëttu kër yi diine ji nga xam ni euh, lu xew ci diine ji euh, coono soññate gi nga ci am. pour umma islam bi yëpp kontaan loolu it président nu ngi la ci sant bu baax yow itam di la ci gërëm di la ñaanal yal na yàlla yokk la dëgëral Euh, bi xew-xew bi amee ak léegi suba ba léegi benn programme amul ci télévision bi euh, programme bépp ñu ngi ko jëmalee ci euh, Serigne Pape Malick kon it yow it nu ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal bu baax a baax Ndour. jërëjëf. Pape moom moo ngi woon ci chantier bu rëy mooy initiative boobu nga xamante ni moom moo koy piloté mhm. ànd ci ak forum social mondial ànd ci ak ay borom xam-xam aussi bien au Sénégal ci biir Afrique pour ñu xool bor bi nga xamante ni àdduna bi yoreel na ko euh, c'est Afrique yoreel na ko àdduna bi mhm. surtout les les les puissances étrangères nan la ñuy def ba neenal ko donc ci loolu la nekkoon mhm. mais tey bi mu ñëwee dafa rappeler ne initiative vingt 96 bi tamit moom bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo ko porté woon mhm. te tey jii daf ci wax lu am solo mooy xeex bii nga xamante ni ñoo ngi koy xeex c'est pour les générations à venir parce que ñooñu bor bi ñoom ñoo koy fay. te toll na ci trois cent soixante cinq milliards de dollars. yaa ngi dégg donc mu am ci taxawaay bu am solo waaye bi mbir mi xewee bi muy génn ci foofu nga xamante ni euh, waroon na accordé aussi bien à la presse nationale international ay interview ak yëpp. Mm-hmm. bi dogal bi wàccee rek. daanaka ci la ci la arrêté li mu doon def yëpp man woo na ma tey deux ou trois fois. Mm-hmm. donc di def ay témoignages ma xam ne am na ci ñeewant boo xamante ni sama. particulièrement marqué tey ba pare jaale ma ko euh, personnellement ma xam ne loolu yitte la yëg la mhm. mais générosité la mais euh, moom aussi mu mu bokk ak ñoom tool boo xamante ni ci lay bay te tool bi mooy mhm. nan la ñuy def ba ñàkk sunuy ndaw tey ñàkk leen ëllëg ndaw ndaw ëllëg waaw jërëjëf Pape Djibril am nañu mbégte ñaanal président Youssou Ndour yal na ko yàlla yokk dëgëral moom itam euh, bor ba mbaabaal nañu ko gaa yaa ngi ciy xeex de. xam naa ne moom xam na agenda la. waaw tey initiative bi moo nekk nii pour l' de la dette publique africaine. Mhm. Euh, waaye xeex bi day tàmbali tey ndax ñoom dañoo wax ne moratoire la ñu proposé ñoom ñu ne bu ñu am moratoire nañ ko annuler nañ ko neenal. waaw maintenant ay négociation yu métti lay laaj. moo tax nag yàlla nañ ko neenal ci barki mag ñi. moo tax nag ñu ñu laaj ci ñu ñu soxla ci personnalité forte personnalité yi taxaw ci mais surtout le talon d'Achille bi nga xamante ni Afrique amoon na ko jusque là c'était la négociation léegi négociation boobu nag foofu la ñu jëm tey te je pense que soxla nañ ci toutes les filles. tous les fils de ce continent là mais surtout soxla nañ ci xam-xam bu wóor ak taxawaay bu wóor ak influence bu wóor mm-hmm. ak lobbying bu wóor ak mobilisation boo xamante ni aussi dina tax non seulement buñ ñuy baal ñu baal ñu waaye dina tax buñ ñu baalee it ñu bañ a am détournement d'objectif waaye ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu ndax Afrique dafa am ay urgence yoo xamante ni xeex ko xeexu mooy li ma doon wax léegi xeex boobu mooy bi yóbboon sëñ Pape Malick Sy ca kaso ca 94. mooy xeex ba accès universel nekk réalité. Mhm. accès universel suñ ko waxee mooy yi ñuy jëfandikoo ci infrastructure de base nekk réalité. xeex ba nit ñi li ñu war a jot ñu jot ci ku war a jàng-jàng ku war a faju faju ah, ku war a dem école dem école ca na nga xamante ni noonu la gën a jàppande ba nga xamante ni égalité de chances dina nekk une réalité combat bi day dugg ci combat boobu macha allah am nañu mbégte euh, bala ma euh, Pape Djibril kàddu gi na solo kon yàlla yàlla fay sunu kilifa yi euh, ñoom itam seenu njàmbaar ba tax ñu boole leen ci réew mi nga xam ni ba ba ci àdduna bi booy lim ñi ci gën a jàmbaare da nga ca boole sunu kilifa yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yokk leen dëgëral gërëm bu baax baax baax président Youssou Ndour moom itam ndokkeel ko gërëm ko bu baax a baax ñu euh, dem ba golf nag euh, amo amokaat fekk fa sëtu Sidina Mohamed ki nga xam ni euh, bari na ndaw lu dëngoon fexe na bëgg a jub bari na ay ndaw yoo xam ni fexe nañu bu nu jub man di ci bëgg Sidina Mohamed bëgg Cheikh na Ahmed Tijani Chérif maamam te mooy Chérif Ibrahima Haydara Tijani nga xam ni moom kenn ku ne xam na it cër bi mu am ci tarixa bi cër bi mu am ci kër seex Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu mais digganteem ak sëriñ Pape Malick cofeel gi dox seen diggante ñoom ñaar euh, Cherif Ibrahima nu ngi lay nuyu Haydara